Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus la cloche de notification. mën naa defar Sénégal yi ba mu yegg fii donc dama di remercier kilifa diine yi parce que am na ci ñoom ñoo xam ni taxaw nañ ma taxawaay boo xamante ni ñu bon ñu bëri xamuñ ko chaque fois dama gis ne rek jëfe dañ ko defoon seen jëf kilifa surtout yi imam yi aussi les imams parce que xëy na peut-être doon naa wax mais laaj bi ma def di wax ba comprendre ñu peut-être yenn propos yi nga xam ne yeggul mooy li ma waxoon juge bi rek. juge bi ne ma lu tax nga ni gendarmerie ay franc-maçon lañ ma ne ko waxuma gendarmerie ay franc-maçon la gendarmerie ils sont pas des francs-maçons je parle pas des gens des gendarmes en fait man constitution Sénégal laay wax institution Sénégal yi laay wax Sénégal ni mu lawloo laay wax li nga xam ni Sénégal dañ ko tënk ci constitution bi institution yi république bi et tout diine bokk ci c'est-à-dire chrétiens yi amuñ ci wàll musulmans yi amuñ ci wàll c'est-à-dire la euh, Sénégal texte yi tout ce qui est paperasse maanaam këyit lépp lu ñu bind ci wàllu papier Sénégal diine bokk ci diine bokk ci maanaam te pourtant ci religion yi boo demee ma ne ñun loolu foofu la ñu poussé départ bi c' est laaj loolu laa si doon ni ah dama ko expliqué ma ni c' est pas normal boo demee gendarmerie procureur imam bi parce que dañu jàpp imam bi moo tax ñuy interdit julli te jàkka yi imam yi seen ñëw boobu ñoom ay institution lañ te xam nañu jàkka yi ñoom ko néegu yàlla la kon néegu yàlla loo moomul la koy amoo droit tëj ko di ko tijji parce que dans l'histoire amul fenn fu ñu wax ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëj na jàkka wala tëj na ko tëj tëj na jàkka yi musu musu ko def donc loolu la léegi nag li nga wax mooy mënoon nañ jël mesure barrière comme dëkk yëpp ni ko jëlee respecté ko takk ay masque laal gel antiseptique et ba pare mën a julli comme ni koy def te gisuma kenn kuy julli ci jàkka fi ñu toll ñu ne am nga covid bi wala feebar bi def naa erreur dama koy reconnaître aussi damay damay jégalu ci kanamu Sénégal yëpp je m'excuse parce que dama waxee sous le coup de la colère waxee sous le coup de la colère cest dire dama wax parce que dañu convoqué xalif bi xam nga li jiitu d'abord mooy dañu njëkk euh, convoqué imam bi nga xam moo nekk euh, Médina Rebeuss dañ ko njëkk convoqué imam kan police plateau falaa yendu lënd bi ak moom maag Cheikh Oumar Diagne maa ngi koy remercier de passage ak Armand Mboup ñu yendu ak imam bi imam a 78 ans imam bi ñu jàpp ko cin heures du matin parce que da bi bu ñu téye ko fa mu woor ko bàyyi parce que da doon julli c'est-à-dire mani naka la tubaab bi réussir ba dindi ñun yërmande bi waroon nekk suñu biir parce que commissaire bi jullit la ah wala muy chrétien wala am nga nu mu ko nekkul koo xam ni nekkul ci institution institution yi muy topp ak constitution yooyu noonu nga xam da koy dindi ci diineem commissaire bi du quoi quoi te commissaire bi nga la ko fekk naka la mën a accepter bi teg ko ci violon ko fii Sénégal lañ nekk quoi tout ça mën nga wax sax teg à côté ci benn ban mag la il est vieux doon julli xam nga diine lu si wax foofu nag la affaire bi déclenché wu boo seetee def naa benn live di ko wax maa ngi foofu naan maa ngi police na 78 ans mi ngi ci mi ngi ci gris jour boobu nag laa dépensé ne ngi lancé rek wax ñëpp nag vendredi na ngeen fexe ba ñu julli ci parce que toog nañ 4 5 vendredi yoo xam julli ci wuñ léegi nag loolu xalif ña seen da ko dégg ñeneen ñeneen dégg si jàpp si ñëpp kilifa yi jàpp si ma leen remercier bu baax a baax a baax léegi nag bi ma toogee nag après ma gis ñu Facebook ñu wanee live direct Khalifa Niassène bi di dox ak kan bi xam nga mag xam nga Sénégal ak mag ak suñu sëriñ tamit xam ngeen ku nekk ak gëm-gëm ñu convoqué ko mu ñëw di dox ci kii bi noonu di yéeg ci escalier yi biir commissaire commissaire central u euh, Kaolack ça m'a fait mal quoi ma ma ci ma wax nag sur le coup la colère def erreur nag quoi parce que daf ko wax dafa ni boo meree bi ma gisee dama mer rek automatiquement ku ne xam ngeen laayam ni mu mel génération bi ñu toll actuellement xam ngeen laayam ni mu mel mm. spontanéité bi si nekk nga xam ne da ngay wax échange bi ci am xam nga gis dafa spontané quoi te li ngay waxee noonu la ñuy di tonto itu itu donc loolu moo tax ma waxee noonu mais bi may wax dama la waxee pour ñu fi ma doon waxee mooy Sénégal c'est pas normal ba tey ku tooñ Seydina Mohamed wala nga tooñ waa jàmb bi yoon du def dara soo laalee Macky Sall léegi ñu ne la article nangam article quatre-vingt article nangam ak nangam dañ ne mais imaam yi ñoom ay institution la ci diine l'islam ñun bu ñu juddoo imaam yi ñoo ñuy dund ñun bu ñu dee imaam yi ñoo ñuy suul kooku amuñu ñooñu amoon gis ma ku leen ëpp valeur Sénégal naka la ñu mën a sàgganee ba tey suñu diine bi nga xamante ni nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans cinq pour cent de ñu gëm ba ñu sàggan ba suñu ngëm-ngëm yooyu amuñu part ci suñu ñu sàrt réew di doxee loolu defet la gàcce bu rëy je pense que loolu lu am solo la léegi nag ce qui yi ñu def ci yi ma def ci communication man peut-être yor naa jikkoy sénégalais comme ni koy waxee mais soo jubee da nga naan juum nga tooñ naa dama tooñ parce que commissaire bi aussi liggéeyam la doon def c'est pas normal ma taxaw naan dañ ko war a man moom ordre la jot rek appliqué te ordre bi mu jot noonu peut ko ko jox ñaar sëriñ xam da koy jox ordre yi mu def mais man man def naa erreur ma koy jégalu moom commissaire bi la di ko jégalu parce que am na ay frères yoo xam ni ñu ngi liggéey ci police bi am na ay frères yoo xam ñoom maa ngi ñoom ay policiers rek gendarme ñooy bokk mbalaan gu si ñoo bokk gëm sëriñ comme Sénégal mu mel kon ñoom mënuñu nekk ay mais la gendarmerie ñi muy doxee institution yi ñi muy doxee la gendarmerie ni ñuy doxee ci ordre yi tey bu ñu la woon léegi-léegi nii Serigne Touba fi nekkoon ñu ne dem leen jàpp Serigne jàpp Serigne dem leen jàpp Baye Niass jàpp loolu ñun war nañ ko bàyyi bu baax a baax war nañ ko xoolaat bu baax naka la diine bi néewee doole Sénégal ci ni ñuy doxee te ñun sàggal nañ ba constitution beeg institution yeeg yëpp moo supérieur su diine yi république bi dafa war a topp ci suuf diine yi alxuraan bi nekk ci kaw bible bi tamit ñi ko gëm mu nekk seen kaw c'est-à-dire ñu jël gëm-gëm bi nga xam moom la yàlla nekk suñu diine ñu gëm ko yooyu nekk ci kaw après nag politique bi euh, nekk ci ne ma euh, tax nga ni lu tax nga ni gendarmerie France ma ne man wax moom dafa yeggul mais su yeggul di nga comprendre c'est-à-dire wax mooy ma bëggoon wax mooy man institution yi laa dama bëgg république bi nekk ci suuf ñu tënk suñu constitution yi ci diine yi suñu diine yi ñu gëm suñu imaam yi am baat ba nga xam ne bu ñu waxee ñëpp dégg leen ñu respecté leen jox leen seen cër parce que imam tey dafa institution la bu ñu war a jox cër loolu c'est très important donc ñun suñu xeex boo déggee nitu dëgg valeur loolu valeur yi la xeex lépp lu yàq diine yi lépp loo xam ne àdduna bi mondialisation bi yegg tey ngay gis ay góor jigéen ay droit ay homosexuels ay même ay dëkk yoo xam dañuy xeexal sax pour pédophilie mën nañ ko dundal mu dox yooyu yëpp ñun dañ koy xeex donc yooyu li ngay xeexee mooy fexe ba ñàkk tey suñu Sénégal ba ñu xam ne am na ay nit yu taxaw pour dëgëral diine bi Sénégal diine yi parce que religion mooy lay léegi soo relié wul ci yàlla dañu nga relié ci satan ñaar yooyu ñoo fi nekk ñun nag comme nag def na suñu constitution suñu institution relié wul ci ci ci yàlla kon xam ngeen fu mu relié muy jéegul donc loolu mooy mooy premier part dama dama si bi ci ci wax aussi leeralaat tamit laaj bi parce que dafa ma benn point rek moo si des mooy saaga yi laaj bi dañu ne ñëpp damay dégg toog ci rajo bi donc nga koy suura ñu naan Karim Assane Diouf Karim day saaga Karim man musuma saaga j'ai jamais insulté man ñi may àndal ay imam Ali Badara sama live sama sama chaîne YouTube Imam Alioune Badara Ndao daf ci daf ci daf ci kii la ci dafa abonné ay kilifa yu mag ñoo abonné sama chaîne ay Mbàkke Mbàkke ay Siwel ay Ñaseen man su ma doon saaga ñooñu ma toog parce que ñooñu ñàkkuñu fulla di ànd ak kuy saaga man du ma saaga musuma bu dee saaga naan xëy na xanaa rab la woon jamonoy rapport yoo xam ne peut ci biir musique bi loolu quoi te même saaga dañ koy codé mais saaga actuellement toll nañ ci dimension boo xam ne man musuma saaga sama chaîne Abdou Karim Gueye musuma ci saaga saaga dafa jaaduwul gis naa Assane Diouf ci kaso bi waxtaan nañ dañ doon daje guub ma ko saaga yi nga war a bàyyi saaga ci boppam moo jaaduwul kenn warul saaga kenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam neen bàyyi leen di saaga seen bopp ñu ne ko mu ne ko saaga waajur ju sa sa waajur yooyu lu ma gëm la dama diine bi lu ma gëm la lu may xeex lu may xeexal la gëm ni dafa war a samp Sénégal donc loolu c'est très important donc donc point yooyu daal bëgg naa ko souligner bu baax a baax sama tenir à cœur ma leeral ko quoi remerciement yi aussi dama ci boole diaspora bi la diaspora moom suñ ma seetaan donc baax a baax a c' est très important euh, beneen bi euh, mooy euh, par rapport li nga xamante ni mooy jour bi nga xamante ni tey gendarmerie ñëw nañ sama kër ba jël ma yóbbu ma di wax sama affaire santé parce que dama bëgg ñëw foofu bi ma biñ ma jëlee ba yóbbu ma ci brigade recherche la gars yi commencé wax na affaire santé je suis malade leer na Sénégal yëpp sama feebar yàlla moo def yàlla moo ko ci nattu mu siw su ma sañoon du parce que tëdd naa man fii hôpital avant avant ma principal avant mooy voyager tëdd naa une urgence euh, réanimation te kenn xamul ne dama feebar bi ma demee Sowel la ñu bëri xam ne dama feebar après ci la génn ci lañ commencé gis yenn politiciens yi di ñëw après loolu nag mu siiwal malheureusement mu siiw mais neexuma dama def naa ay loolu dëgg la dama feebar ci bi parce que dafa boo xamante ni man moom laay jël à chaque fois parce que man tamit xam moom ni may dundee. kaso bi ñëpp xam nañ ak pandémie bi nii dañ ko tëj c'est-à-dire kaso lekk du dugg lekk du génn léegi kon dama obligé woon di lekk ci lekku kaso bi wala may dem boutique dafa jël ay sardine wala yoo xamante nii dama si doon góorgóorlu mu moom kon loolu nag moo demoon ba commencé indi problème ba ma am ñaari malaise ko amee sax moom dama ko doon nëbb parce que sama jabar laa wax rek vite fait moom ndekete affaire bi def na ko problème parce que moom xam na feebar bi ñoo dëkk ma ko waxee moom ci la woo avocat bi pour sama médecin traitement ñëw dugg si kaso bi pour xool lii nag la wax moom aussi ñoom ñu gis avocat bi di expliquer pour médecin bi ñëw avocat bi nag médiatiser affaire bi lii fekk gars yi médiatiser ko dañu bi ñu ko médiatiser dañu ma yóbbu pavillon spécial dañu ma yóbbu pavillon spécial def naa fa 15 jours yoo xamante ni dañu ma toppatoo damay profiter si occasion bi di remercier waa administration pénitentiaire damay di remercier parce que administration pénitentiaire wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ parce que xam nga ñu dénk la te li ñu la dénk joxuñ la matuwaay yoo ko téye c'est-à-dire joxuñ la yoo téye li dénk ñoom loolu moo mu nekk ay mbir yu doy waar yu ma fekk ci kaso bi lekk ñoom dañuy état bi daf leen wax léegi lekk di dugg di génn amatuñu si ñoom pénitencier ñoo gën a ñoom duñu nelaw duñu dañu dugg ci kaso bi mu nekk lu metti loo xam ñoom ñu ngi koy dund foofu ñu ngi pavillon spécial ma nekk fa spécial dañu ma fa toppatoo man benn sens dama tiit ma ne ñu man ñi ni ma toppatoo yu ne lan la mais comme foofu amul internet télé bi dañuy seetaan après naa ne ah ok ci laa gis sénégalais yi taxaw moo tax aw seen fay aw ma fayu presse sénégalaise aw ma fayu sénégalais seen fay moo tax moo tax bu ñu naan da nga feebar man pousse pousse su a wax ak mën war a bàyyi di wax non noppal non xanaa xooloo sa doom yi dama koy wax à chaque fois ma ne naka ngay wax ni jullit bu nekk li mu yéene boppam la war a jéene jullit yëpp nag ngay yéenee sa doom toppatoo ko te yéenewul toppatoo doomu jàmm nag ngay xeexale sa doom te doo fasinoo xeexal sa doomu jàmm donc kon sama doom man seen doom sama doom la suñu doom ñu suñu doom ñun ñëpp la jigéenu Sénégal yëpp dañ ma xeexal ba dama mujj dama man damay yëngu damay génn si kaso bi sax appel téléphonique yi jooy ma ne man lan laa defal Sénégal kon man am naa liggéey bu rëy boo xam ne may xaas ma kanam am na yoo xam ne ñaaxu la dañ ma ñaax xam ne waruma war waruma fen waruma waruma war naa éviter lépp bañ a laal lu leewul boo xam ne man dama am way bu taxaw sama kanam moo tax toog man défi la quoi moom tam man pour man défi la donc c' très important loolu aussi lu jar a bàyyi xel. administration pénitentiaire am na yu fa nekk yoo xamante ni am na yeneen yaatal xëy na peut-être du fi xaj ñu ko yaatal yu bari ay nit yoo xam ne fekk naa leen si kaso bi ñu nekk ci condition yu doy waar yoo xam war nañu ko xeex comme sànq li may wax ni Sénégal diine bi amu fi wàll noonu lañ jàppee imam Abi Touré ma ko tëj ci kaso bi moom Assane Diouf ñoo bokk benn nekk xam nga yoo ne diine l'islam dafa am législation boppam ñu diine boo xamante ne nii day dañ koy boot diine buy bootaate la loolu lañ ko jàppee noonu lañ jàppee tamit euh, Camara mais Mamadou Camara mi nga xam ne mu nga fi pavillon spécial dañ ko opéré tëj nañ ko deux ans kenn ci yoonu suuf bi la doon dem pour immigré bi ñu jàpp immigration clandestine ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee ne terroriste la dafa jaaroon gaaw indi ko tëj ko ba feebar fekk ko ci kaso bi ba ñu opéré ko ba mu am poche man poche xam naa ko su ma nee poche xam naa poche mbéy mi dara mais xam na li may wax mati boobu tamit xam na li may wax de su ma nee poche xam nañ li may wax. donc mu am poche nekk si kaso bi di dund lu méttee méttee méttee deux ans mi ngi si kaso bi ñu jiñ ko terroriste te ñun xamuñu lu xew ñun ñu toog si biti rek maa fekk aussi benn grand boo xamante ni bi ñu mu turee nekkee ministre ministre ministre de la justice la ko téye bi mu turee woon ci affaire

des milliardaires di ànd ak Abdoulaye Wade di ko dimbali di kon ni ñu ko wax xam ngeen politique Sénégal yi mu demee mais quoi qu'on ak lu mën a am lu grand boobu def tey politique yi ñu ngi def ko gën a pire ci dëkk bi te mu dee ñu bàyyi ko a libéré donc loolu aussi bokk na si tax ma doon rey sama bopp ne foog ma génn wax parce que mënu ma téye yóbbante waa kaso bi te du ko wax affaire phobie yi ay affaire yu doy waar gis Sénégal fu mu toll ci scandale lu nekk mi ngi xew ci wàllu phobie ci ci ci ci wàllu littoral ci wàllu lu nekk point bu nekk point boo ko toppee tey fii di wax lu jeex ñoo xam naa yu bëri peut-être ci ay interview li ñu ko mën waxee mais du xat fii day du xat fii quoi donc euh, je pense que euh, waaw waaw waaw donc donc je pense que loolu ah noonu la d'abord euh, maa ngi ñu ma répondre sama pour waxoon ni ko liberté provisoire ku ne xam nga justice sénégalaise na muy doxee cest à loolu ñoom ñoo ko ñoom dañ koy def pour tënk la quoi c'est-à-dire mais duñ teree xeex li may bañ kay mooy ñu boole ci gaar ñi nga xam ne ñuy xeex teggi néew loolu rek laay moo sama souci loolu la mooy Sadio bu laa dégg mu koy ni Sadio bu rek mooy wax li nga xam moo nekk sama bopp actuellement donc pour wax euh, a xam Guy Marius Sagna moom la am <laughs> ñoom ñëpp moom lañ am cest à li ñu bëgg mooy def teg la foo xamante ni doo sañ a waxati wala ngay contrôler sa bopp wala yooyu mais à chaque Sénégal lu mu soxla ci xeex dañ koy def ci teggin ak yar